2003 2003 boobu xale laa woon ci laa dugg ci journalisme am ci benn option ak benn choix 2011 bi Y'en a marre di juddu j'avais à peine trente et quelques années euh, boobu ba léegi maa ngi ci espace public bi comme li ngay wax maa ngi agité wu di góorgóorlu di regret ji di def lu nekk pour que Sénégal baax yaa ngi dégg euh, agitation boobu may def pour que Sénégal baax su ma ci doon ut dara su ma ci ut dara romb naa fii. bien sûr est-ce que comprendre su ma ci doon ut existence. tey jii leneen la ñuy wax. bien yaa ngi dégg. d'ailleurs juste ut la petite parenthèse. 2011 2012 bi ñuy jug ñun di tiye Wade. Y'en a marre. bi ñuy jug di téye Abdoulaye wadd di pour xamala lañ ko doon bokkoon na ci lu gënoon tax ñu jóg suuf su ñuy saax saaxee. parce que dama nekkoon reporter déjà 2005 2006. maa ngi doon topp waa CPC qui deviendra plutôt CPC LD et cetera ba mu nekk France Siggil Sénégal ba jur benn Siggil Sénégal ñoom Abdoulaye Bathily ñoom Tanor Dieng ñoom Moustapha Niasse à l'époque ñuy wër ci chancellerie yi naan dañu leen wax bëgg a wax ne Abdoulaye Wade bu ñu ko fi jëlee danañ nangu suuf si mu jël sax saxe ko est yaa ngi dégg. Mm-hmm. donc 2011 2012 muy jug pour que suuf soosu noonu. pour que ñu delloo préoccupation sénégalais ci boy boy bi ñi ngay défendre ni tey ñi ngi nekk derrière leurs ordinateurs di lijjanti suuf nekk ay privilégiés du pouvoir. di lijjanti suuf. mooy seen métier. lan euh, ngay woowee lijjanti suuf. laisse ma laisse ma terminer non non laisse ma. da nga may des da may bàyyi non may bàyyi. ma terminer. da nga may bàyyi da nga may da nga may bàyyi da nga may ah. ñu jël suñu réew sénégalais yi voté jël jox jox jox jox euh, président Diomaye mu jiite mu ngi mel ni ñu am bus jël chauffeur jox ko dañu nommé suñu bus bi bu dee gaal gi Sénégal gi bus la ñu jël chauffeur bi mu nekk président Diomaye ñu jox ko suñu volant muy dawal di dem duñu xaar ba gaal gi ba ba camion bi wala wala ba bus bi dal ci biir miir bi dal ci kaw miir bi ñu taxaw ñu door a wax di door a artu déedéet dañuy commencer fi mu tàmbalee tànk ak tànk mbagg ak mbagg lépp lu mu doxalee naka su dul ñu ne ko attention. fii moom noonu la ko waxee woon ko bëggee dayee. loolu la ñu xaar donc donc ci loolu laa nekk ñu nekk. et dinañ ko continuer de la manière la plus objective possible boo xam ne objectivité bi moom seetuñ ci seetuñ ci seetuñ ci seetuñ ci lu neex nit wala loo xam ne na naqari nit parce que utuñ ci bakkan utuñ ci bakkan donc loolu la loolu la loolu loolu laa bëggoon a loolu laa bëggoon préciser li ci des nag am na loo xam ne je l'ai dit depuis le début critiquer gu ñu sa gouvernement critique jotagut parce que balaa ngay critiquer day fekk mu établir dëgg-dëgg te di nga dem ba ay un deux ans nga door a xam jikko nit ñi dëgg-dëgg parce que yegsi boo yegsee ci pouvoir bees gis nañ fi quand même Wade mu yegsi uh-huh. ci suñu jeune âge yi président yu ñu dimbali ba mu falu ñu observé ko te duñu dem jëriñu parce que bu ñu jëriñu taxoon a jóg dañuy dem ànd ak ñoom di jëriñu bien sûr donc critique jotagut li ñu def ay constat kese la mais bu fekkee ne constat yi sax nangu leen ko nangu. constat bu objectif. yaa ngi dégg mais bi nga defee constat ci agence non objectivité objectif non da nga jël benn bàyyi bu la neex rek. objectif objectif en fait et puis le pi le la li li tax li taxaw non. ñi c'est des inspecteurs des impôts bénéficier de du système. Mhm. ñu génn ci système bi ñu dund loo leen li ñu dund. nga toog tey naan ñi c'est des privilégiés. un privilégié mooy. amul benn inspecteur du ñu privilégié ça vraiment bëgg bu ma dugal ci débat wu. non yow yaa dugg ci débat yooyu man daf ma xaw a bett. parce da ngeen am histoire. ay privilégié xoolal ay histoire bu eh, ñu leen ko gomee. xam nga lan mooy privilégié. mais lii mooy privilégié xam nga nga nekk nga génn. dem defi concours inspecteur exemple impôts et domaines nga nekk ENA man ma def concours imp ma def concours dem dugg ci beneen école nationale mun na nekk lu nekk parce que yàlla école nationale yi bëri na. nga génn parce que inspecteur impôts et domaines nga war nga mun a am kër Mermoz. loolu koo ko créé ñoom. mais système bi la mooy système bi ñuy xeex. waaye yow yow kay. non mais defal naa ça veut dire que xam da ngay fàtte ne xam nga lan moo garaaw c'est man dama am impression ko li ngeen doon wax ci changement de système dafa mel comprendre ko. donc yow parce que système bi ñu doon bi nit ñi doon xeex bi nga xam ne ay quelques privilégiés ñoo jël li ëpp ci askan bi téye ko système boobu la ñu wax ne moom la ñu combattre. ça veut pas dire que nag que kii moo ko defal kële moo ko def yéen da ngeen door yegsi. on vous attend à l'œuvre foofu laay waxee ak yow. attend à l'œuvre nangul naa yàlla boo nee ma. Ah, man de constaté naa ni bi ngeen ñëwee ba léegi dindeegu leen ay dëgg dëgg non non loolu agence agence yi benn la. benn la jox la beneen affaire xam nga yéen ma jox la beneen exemple. Mhm. xam nga tey jii par exemple situation prison yi priorité priorité boo xam ne la war a nekk ci yéen. situation carcérale bi. waaw priorité la. priorité bu mag sax. waaw impunité bi aussi. ci xale yi dee. waaw boobu priorité bu mag la lan la président wax. la mooy priorité. non dafa am jëf jëf lay. jëkkee non nan lay jëfee dañ lay laaj. Hmm? lan nga bëgg mu jëfee ko. da nga ni sànq na toj kër yi. président mooy yónni ay bulldozer. non non mais sa waay bàyyi li ngay def dama lay laaj lan nga bëgg ñu def ko. mais justice. nan la defee justice bi. yaa da ngeen da ngeen da ngeen a voté da ngeen a voté loi d'amnistie. waa léegi ku nga ñëw ni arrêté bi xanaa après kay la def bi dañ leen ciy xaar. xam boo nee amnistie bi. ñu ne la am amnistie loi la. waaw mais loi bi kan moo ko vote loi bi assemblée. ban assemblée. nationale bi nii nii nii. est-ce que da ngaa gis député Pastef dañ koo voté. mais jàll na. dama non moo tax léegi nan nga koy dindee. keroog bi ngeen buggee bu ngeen buggee bu ngeen buggee loi wu bu ngeen bañee loi wu bu député Pastef yi bañee loi kii bi jàll nu mu tudd loi bi proroger élection yi report élection yi. waaw nan lañ def. dañoo bañ. nan lañ bañee. conseil constitutionnel gendarmerie sax dafa mujj dugg ci biir assemblée nationale conseil constitutionnel yow yaa ngi euh, ci vote loi bi maa ngi assemblée génnuma assemblée. vote loi bi empêché wul. da ngeen ko bi ngeen bañee ñu proroger assemblée bi. waaw a bañ ba gendarmerie dugg biir assemblée nationale keroog ba ñuy voté daal amnistie bi subitement ñëpp civilisé ñëpp nekk ay démocrate. mais ñëpp ñëpp nekk ay démocrate. ngeen génn assemblée nationale waaye léegi tey ji benn léegi jamono yooyu boo ko convoqué. benno benno ci mooy nekk ci biir salle bi. xam nga li nga war a wax. ay nit dañoo dee pour ngeen falu. ma ñoo la ko gën a xam. waaw réglé leen ko. parce que ñun suñu bopp on l'a tous vécu dans notre chair nan lañ koy réglé lan nga bëgg. président yow da nga koy woo mu nekk dictateur quoi. non kan lay tëj kan lay jàpp. bala ngaa woote xam nga nooy def. dangay ngay saisir benn juge. Mhm. ubbi ay dossier jox ko. Mhm. reddition de compte. ma rapport ñaata rapport moo génnagum ñaata rapport moo génn rapport yi génn moom bari na président lu mu la wax dafa ni la man tëju am na lu may woote rupture mhm. xam nga la mooy rupture bi doom lee mënoon nañoo fayu wax na la ko mhm. je vais laisser le temps de la justice mu am man duma ko jël di ko politiser moo tax rapport yi daa génn mhm. war nañ cee saisir procureur ñu ngi xaar CSM bu bees bi ñëw avec les nouveaux magistrats ak ba boo xam ni tout est établi man leen seeni rapport a ngoog. mooy mooy raxas bi premier ministre doon wax. non mais lim la wax ci raxas. mooy de toute façon non mooy raxas bi raxas magistrat yi. raxas kenn mënta raxas magistrature. non dama lay laaj ndax mooy boobu dans le sens déggoo ma. waaw yora benn ay nouveau magistrat yu ñëw. ci CSM kook seen normal. année bu nekk il faut mu am réunion. normal ñu affecté. mu ne la nag su ñëpp ñëwee. parce que boo ko joxee tey dossier bi kenn procureur boo xam ne suba dañ koy affecté wala dara dangay ngay liggéey bi bu bu ñëwee ba ñu nommer leen bu boobaa nga soog a wax. daan yéen de da ngeen feexoon ay rapport mais kenn joxul président dafa ni la malgré ce qu'on a vécu il y aura le temps de la justice du ma def comme sama prédécesseur fayoon toow ma benn deuxièmement les la reddition des comptes c'est pas une question ni politique ni électorale mais pour man on applaudit des deux mains li li ngeen li ngeen li ngeen vivre lu mu leen jural tey